mbokk yi teewlu saabal tomb kom tafi taataani seeni xibaar ci làkk wolof lëkkatoog l'Observateur jenn waay ju ca bokkoon dal na ci kaw Pape Djibril Fall ñu bari yàgg ko fonk ndaxu dëggoom akuk amoom Pape Djibril Fall wala pdf ni ko ñi ko jegee di woowee eh, ci naataangoo mi lëkkatoo gi mën a yàq ab deram ginnaaw mbirum càccug bàyyile gi ko am satu saw Sidibé waxaloon laata jongante yi pdf ñi koy tudd ci meneen mbirum wor eh, ci jamono genn ndégg tukk Amidou Thiaw bokk ci lëkkatoog Euh, les serviteurs NPR euh, mi ngi daw ci lënd gi sëñ Thiaw mi ngi ci wax mbetteel gi mu am ci àndam gi ak Pape Djibril Fall ci jaw ci jongante tànn jàmbur yi wees ci noonu mu waxee jaar-jaari amuk seen lëkkatoo gi sëñ jàpp na ne saabalkat bi fonkul lenn ci ay diggéem ci li ñu mën a jàpp ginnaaw bi sub jongante yi amidu ak ak langam gi wër nañu Sénégal yépp ngir am nit ñi war ci bàyyile gi ngir jongante tànn jàmbur yi bi ñu mënulee am lim war ci la ànd ji ak Pape Djibril Fall ngir ñu boole seen doole ci noonu la kuréel gi Pape Djibril faal jiite xamal leen na leen am nañu lu ëpp fanweeri junni bàyyile euh, yu téeméeri tamnareet ak euh, jumtukaay logistique ngir dem ci campagne bi ci noonu la ñu àndee waaye ci jamonoy euh, joxe seen limka ci la ñu xamle ne Pape Djibril Fall juróom-ñetti junni ak juróomi téeméer nit rek la am te koppar itam des na jafe-jafe yooyu ñu mujj am moo leen yóbbu ci ñu dem ànd ak Pape Thiam dëkk ca goxob Jurbel ngir matal li des way politique bu yees bi ginnaaw xew-xew boobu ci la Pape Djibril Fall gaawtoo amal am ndaje ak taskati xibaar yi ngir xamal leen ne am na li mu bàyyi léegi te itam bàyyi ñi mu àndaloon ci lëkkatoo gi bi nga xamee ne lépp li war ngir mu dem ci jongante yi mat na PDF eh, di génn ci jataay nit ne moom dong moo def lépp te amu ci lu dul eh, juróom ak juróomi téeméeri nit eh, di li caw wax moom eh, Amadou mi ngi réccu li mu wóolu woon Pape Djibril Fall ndax daa jox lépp lu mu am PDF ngir mu dem ca kaw noo ngi xaar nag ngir kaddu noo ngi xaar ngir kaddu yi Pape Djibril Fall ci tuuma yi nga xam ne mën na ko yàqal moom mii dugg ci politique saabal tomb kom